beaucoup de téléspectateurs hein, chers amis internautes Safo suivre votre chaîne préférée Fer TV la chaîne du bien-être couloir d'acteur vous revient une fois de plus dalal encore une fois un talent comme nous incontournable et incontesté. ma waxal rek lu ngeen jote ndax man may fi ci chef de quartier ma dem dab ko wat lu bonam tout de suite ndaanan Kuli Fadri Semou maa mang lay ziar Cisco mang lay fay ba yaa ci jam wa ma ngi sante yalla bu wer nak test ci keur ci waaye gis nga nek ci di daw rek senegal tang na da mel waaw commencé naa tàng nag commencé nag d'accord ñu am le plaisir tay, ak contentement bu maga maga mag dalal fi. ci émission bi ñuy wax couloir d'acteur d'abord yaa ngi koy suivre yow. waaw maa ngi koy suivre. xam noo gisee. non macha émission bu neex la. Euh, bu bu bu bu dafa professionnel quoi te dafa raar dafa raar macha allah. d' accord Sémou mën nañu xam comme ku fi jaar rek li ñu njëkk laaj moom mooy xam kan mooy semu nga may tuuti rek si voilà la personne. Sémou nag benn ndonga daara la rek boo xam ne mooy loolu. gaa yi gën koo xam ci Sémou Ndaanaan. soldat deuxième classe matricule 11 44 22 Barkando commando Semofit xale baa ngi tok ben benn la bo xam moy lolu rek bo xam yama gëna xam <laughs> mënu ma expliquer lepp dal ndax yama gëna xam <laughs> waaw. d'accord léegi bu ñuy dégg naan Semou ndaanaan soldat classe xaw la nak lan ni koy waxee matriculé ki ndax semu dafa def armée. non defuma armée defuma armée dama deuguer fi rek dama deuguer fi rek mais defuma armée de. damaa indi sama matricule bopp rek indi seemu ndaanaan soldat deuxième classe soldaar deuxième classe ci lii may def nii soldat laa ci lii may def nii mën naa ne armée laa armée la kon même bu ma jaaru ci armée tamit jaar lii moom armée la waaw moo indi seemu ndaanaan soldat deuxième classe matricule xam nga gars yi dañuy wax ay première classe man gis nga deuxième laa indi indi matricule onze quarante quatre vingt deux Batkandoo commando Semu Fit. léegi mën nañ xam chiffre yooyu. chiffre la créé chiffre bu si amna lu muy non chiffre créé rek chiffre la créé rek ko gis ne tamit neex na rek ko. important pour nous. wax ñu comprendre ni genre punchline la boy def wax par rapport ak. métier bi nga nek manam soldat nga ci est-ce que kon ça dire que lu doxul ci métier bi ak lu lii jaar yoon muy jàll wala jaar yoon. waaw mais noonu la dañuy xool li nga xam ne mooy jaar yoon rek muy jàll lépp loo xam ne xam nañ ne lii jaaru yoon moom dañ koy dindi parce que métier la nag boo xam ne métier bu yàlla gërëm la kon war nañ lépp luñ ci jàllale rek mu doon lu war a jàll. léegi est-ce loolu yow yaa ngi ciy gis résultat yaa ngi ciy am satisfaction. waa ñu ngi ciy sant yàlla parce que tamit même buñ ci amul lu ne gaañi tamit am nañ ci ay nit ñu baax te nit ñi ñooy lépp même buñ ci amul dara sant yalla am nañ ci ay nit ñu baax am nañ ci tamit ay ñaan yalla te ñaan yooyu ñu ñuy ñaanal rek alhamdullilah waaw sant yalla bu baax baax. d'accord accord pour dugg carrément dans le fond ci théâtre si ndax mën nañ xam fan nga jaar ci théâtre ndax da nga def d'abord formation bi wala don la bu ñew ci yow wala ndax def nga théâtre sur scène d'abord abord mbapat. oui def na théâtre sur scène ma 2006 ba tay ma ngi ci théâtre man sur scène sax la gëna xam que la gëna maîtriser que téléfilm yi.

mu def ci ñun macha allah lu baree baree bari macha allah. d' accord ndax gisoo ne que euh, théâtre sur scène léegi dafa commencé de au profit xam nga du théâtre téléfilm yi ñuy def ak série yi. waaw commencé na xaw na commencé wàññeeku même du mën day dee sax mais mi ngi wàññeeku quoi parce que téléfilm yi gars nii moo tax mais mais boo bëggee gis nag lu original lu tegu ci yoon théâtre sur scène ngay gis xam nga téléfilm yi moom yomb na ñu teg la caméra ne la action nga wax li baax ñu dugal li bon ñu dagg sànni loolu ku ne mën na ko mais théâtre moo tax ñuy wax artiste théâtre ci loolu laa bëggoon ñu ñëw euh, tey jii parce que émission bi but bi cest pour gars yi gis beneen facette bi nga xam ne moom la comédien yi di indi parce souvent dañuy yaakaar ni gars yi dañu tëb rek ñii rek di wax gars yi di ak yooyu noonu d'abord am na benn liggéey au préalable boo xam day am da ngeen koy jàng def ay travail la différence entre théâtre sur scène ak téléfilm yi non beaucoup, métier tu xam nga de il faut nga formé wu ci jàng ko di nga don mais tu am am don am don am don te formé tamit du métier métier bu nit ki di koy xam ko maîtriser ko xam texte sa waral ak fi dul waral nga xam li ngay def ak li nga dul def loolu moy aduna lepp lo gis ci aduna bo ci formé wul jaaro ci fi mën nga am début mais doo am fin mën nga am début mais doo am fin te métier bi nag foofu la toll des na ci kanam tuuti nii ku métier bi nekkul ci yow mënoo cee jariñu mënoo cee jariñu. d'accord mais dañu dañu gis ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci série duñu mbapat xam nga dañuy am peut-être corpulence bi am baar barbe xam nga solu jantal ak yooyu noonu booy xool dafa mel ni ñoom la léegi aar bi di gën a fay que ñi nga xam ne dañoo mbappat jaar ci sur scène dem ci ay ASC nawetaan yi théâtre fu ne dem ci festival yeeg yooyu noonu lan mooy waral loolu noonu. non fois nag xam nga day am loo xam ne sens da ciy bokk day am loo xam ne wërsëgu nit ki la loolu moom dañ koy nangul jaam yàlla rek nit mën na nekk ci benn affaire ay at du ci am dara kenn ñëw ñu def ci ñaari fan ñetti fan am ci lu ne gaañ mais wërsëgam la mais dama laa bëgg wax ne maanaam boo ci boo ci formé wul amoo métier bi mënoo cee sori mën nga am début mais doo am fee. métier bi avant succès bi parce que ñu baree bari li ñu jiital mooy succès bi mais succès bi métier bi daf ko importance bu succès bi ñëwé pousse la té métier bi nekkul ci yow tamit lu mu yag yag yag tamit da ngay demaat terre borom métier bi dafa gëna wër succès bi wa man man mom kuma wax dama lay wax ne fexeel nga tarbiyu am métier bi am métier bi moy waral ku ne ci aduna mën nga ko affronter ak ku mënti doon nak mën nga ko affronter parce que métier bi motax da nga am métier bi mais bu métier bi nekkul ci yow amna yo yoo mëno ne dugg. wax ji mën naa bari nag mais am na yoo xam ne doo ci mës a bokk. foofu laa bëggoon ñëw sax parce que en général série yi ngay gis ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee acteurs yi souvent dañ leen di jox texte ñu jàng ko tey ki xam ne moom mooy le comédien bi nga xam ne mbapat na moom day ñëw ñu briefing ko te souvent bu ñu amee face à face ki nga xam ne mbapat na ci taat da koy duma secret bi lan la loolu. secret bi mooy mooy li ma rek mooy métier bi rek bu métier bi nekkul ci yow. Hmm. te am na ñoo xam ne bu la yàlla nattoo sax bañ bañ bañ boole leen. automatiquement yow sa cuune dañ lay dañuy wan carrément kii cuune la da ñaan yàlla nag bañ a dajeeg ñenn ñi nga xam ne dañoo xaw a saay-saay mais ki métier bi nekk ci moom ak ki nekkul rek da ngay xam ni mooy loolu. àdduna daal sëñ bi lu mu mënti doon da ngay fexe nga tarbiyu ko xam ko maîtriser ko dem defi ko mais nit ki lu mu tarbiyuwul xamu ko maîtriser ko bu ko bëggee def tamit day sonn mën na am début mais du am fee. daal na yi dem jàngiwaat. moo gën a wóor même bu fekkee Euh, milieu yi ñu formé nit ñi nekkatu fi tamit nga fexe di jege ñi nga xam ne ñoom formé wu nañ ba am métier bi nga bañ a rëy pour laaj leen ñu wax la parce que foofu lañ toll métier bi moo toll foo xam ne nekkatul lu ñu làmbatu da ngay fexe bu fekkee ne nekkul ci yow te nga bëgg ko nga fexe jege ñi nekk si ñoom ñu def ko ci yow. d'accord ñu gis ne léegi sketch yi bari na série yi bari na xam nga. groupe boo gis rek jékki ji formé wu rek commencé def sketch yooyu noonu ndax yow bokk nga ci ñi nga xam dañ naan léegi affaire dafa commencé di saturé te bu yàggee dina rey aar bi parce que dañuy gis ci n'importe quoi. non xam nga àdduna fi mu toll nii soo bëggee dégg-dégg nag moom lépp a saturé boo demee ci làmb ji tey da nga naan àdduna yëpp ay bëri boo demee ci football bi da nga naan ñëpp ay jour lañ boo ñëwee ci seen métier bi da nga naan ñëpp léegi xanaa moom ay interview la ñu def dafa nekk nag mbir mu mbir mu baax. bu amé bu bu baxé rek am ay tank ben mag daf mo wax ne ar ta duy takal amul sir bu ko mëna a yani ar ta duy takal amul sir bu ko mëna a wodd mais nak li rir mi bari pecc xogi bari bari bari dama ne bu ndoxalé touti ku métier bi nekul ci yaw da ngay dem togi métier bi moo ëpp importance yi ñuy def yépp une fois nga fexé am métier bi pour que nga xam fi ngay tek sa tank fexé defar sa carrière te baña top topp yenn yi parce que kenn ku nekk ne ak li la ci duggal am na xam dafa am lu leen ci duggal kenn ku ne ak li ci aar. tey da nga maa seet si de. waaw chef de carte. fii ci chef de waaw waaw gars yi du ñëw du ñëw di def seet si fii. mooy dëgg. ah dañ ko def waaye dinañ ko def de. mais xanaa gars yi gars yi de. duñ ma mën a gëm ndax li may ut jotaguma ci mais bis bu ma ko nee coppet ba téye quartier bi doxal quartier bi def li war ci quartier bi ñoom ñëpp dinañ ñëw. moo tax toujours nit ki dafa war a gëstu ñi ciy dugg lan lañ ciy duggee il faut nga xam loolu mais du ñëpp rek. dañ cee dugg pour ne aar nii na am ñoom dafa am ñu ci duggee rek kenn ku nekk nag li nga ci séentu loolu ngay am <laughs> loolu la rek. d'accord ndax léegi euh, bokk nga ci ñi nga xamante ni nii dañu dañu dañuy gis ne que remarque bi ñu def mooy souvent nga gis toog gis benn série daw wala benn sketch mu leer ne lii nii amul qualité amul tamit contenu gars yi dañuy kàjj rek di dem léegi loolu aussi est-ce que ci li nga xamante ni nii day rey day rey aar. non da bokk na ci li koy rey parce que tamit bu kenn ku nekk boo sañoon la nga nekk mu jaar ci yoon ñu teg ko ci fi ñu ko war a teg mu am euh, professionnel am nañ koy waxee sax professionnel. professionnalisme. parce que euh, maanaam euh, kii boobu laa mënul prononcer xam des fois doo xam. wax ko mën nga ko non mën naa ko mais tey daf xaw ma nu mu demee noonu danga ma jeex <laughs> mais maanaam nit ku nekk boo sañoon li nga nekk day tegu ci yoon xam nga bañ a am pëccëxoo bañ a am riirandoo. mais comme li ma la wax léegi rek dafa toll foo xam ne nii te ku wax nag xam ma Sénégal moo naqaree waxee fi mu toll boo waxee benn wax ñu jël wax di yóbbu ko foo xam ne fa nga bëgg a jëm ak fañ jëm du nekk benn. mais mais Sémou yow porteur de voix nga tey jii suñu borom def na ni euh, def nga ci aar lu nit mën a teg bëtam yaa ngi bëggal ay milliers de des milliers wala millions de personnes tey am nga ci sa mot à dire donc mil maanaam domaine bi nga nekk soo ci gisee ne am na si ay mbir yu ciy am te doxul ak yooyu mais. pour man yoon la ngeen signaler ko parce que tamit li lay lo wala fi ngay mosee dara ci lene ne. non xam tay amna lo na ni même bo gisee mën nga ko signaler mais dama ne dañu nek ci réew moo xam dafa naqaree wax li ma wax léegi dafa am importance dama ne la wax ji mën bari rythme mën bari mais bu pënd ba wëree ñu xam ñan la ak ñum doon te fofu lañ tollu léegi ni parce que ci kanam touti producteur yi ngay gis ni duñ jël ku métier bi nekul ci yaw parce que dañu sonni ci action tok di xaar di xaar di xaar pour yaw dialogue bi dugg ci sa bop loolu dañ cee sonn waral il faut ñu jéem a respecter métier bi xam ne ñii ñoo yor métier bi ñu doxal leen ñu liggéey ñi nga xam ne nekkul ci ñoom mosuñoo formé wu ñu dem jéem a formé wu parce que nag métier la boo xam ne kenn moomu ko kenn moomu ko de képp ku ci bëgg a dugg bu la neexee dugg ci mais li am important mooy nga formé wu xam fi ngay teg sa tànk pour mucc. damay dégg ñu naan métier bi day nuru foo te du foo. waaw day nuru foo te du foo léegi nag dafa ñoo xam ne soo gisee nag ñu baree bare bari bari dugg ci dafa am ñoo xam ne dañ cee dugal fo dañoo jàpp ne fo la te du fo métier la comme métier yëpp métier la comme métier te métier bu yàlla gërëm la ndax métier la boo xam ne mën nga ci yà mën nga ci am yàlla te doo sonn te moo nekk métier boo xam ne boo yàqoo ci àll ba boo ñëwee mu defar la mais boo nekkee ci biir métier ba yàqu mënatu laa defar métier bi rek moo ko mën muy théâtre. d'accord ndax Sémou euh, am na jafe-jafe. par rapport ak bi mu tàmbalee carrière lan nga ciy dund loo xam ne lii metti na la wala marqué na la. non li ma ciy dund loo xam ne marqué na ma nag moom bari na parce que li tax mu ma li ma ci marqué bari mooy xam nga nit ki ndoorte dafa metti di ci dégg lu ne mais ñu gumba tax luur rek tey ñoo ñu ci doon sànni xeer ñoom ñoo ñuy apprécier tey mais sant yàlla. adduna ma mënoo di dund rek te noo mënoo am jafe-jafe mënul nekk te métier yëpp la nag. métier yi day am dañ ciy am jafe-jafe comme comme ñëpp xam nga parce que des fois sa tour toll foo xam ne nii sa koom-koom tolluwu fa des fois nga yegg foo xam ne nii sa tur yegg foo xam ne sa poos yeggu fa loolu yëpp ay jafe-jafe la nit déplacé wu ñëw wax la soxlaam te mënoo kaa faj <laughs> yooyu yëpp ay jafe-jafe la te buñ sañoon wax dëgg yàlla te sant yàlla daal ñu ngi ciy gis suñ bopp ndax gis bopp gi mooy ñu ngi ciy am ay nit ñu baax ñu ngi ciy am ay ñaan yàlla man moom dama wax ne wax dëgg yàlla li ciy xëy di ma ci ñaanal yàlla ci ay kilifa rek sant yàlla waaw sant naa bu baax a baax wax dëgg yàlla. ndax mën nañ xam si mu si mu la doon dégg bi muy doog a door. non bari na ama def di nga dégg kii góor jigéen la kii xamul fu jëm kii xamul lu mu bëgg liñ ciy dégg moom maanaam dafa bari am na loo xam bu ñu bëggee toog fii di ko wax yaakaar naa duñ fi jógee mais mag ñi dañuy faral di wax ne ku jiitu ñu la ñuy gis te ku bëgg a yegg fa nga jëm da ngay tànqamlu amaana tey fii ñu xaw a yegg akus néew tànqamlu moo ñu fi di te dañuy fas yéene di gën a lu ba yàlla soppi incha allah rabbi. su ma la déggee maanaam nit ci lu mu munti ne na gëm rek te sax ci. waaw mais àdduna loo gëmul sax mënoo cee jariñu booy def loo nekk rek ñu wax ci nga bàyyi doo yegg fa nga jëm tey ki nga xam ne moo moo ñu moo ñu sàkk ñun ñëpp ñu ngi koy critiquer kon ñun bu ñu critiquer dañoo war a sant. yàlla sax am na ñu koy critiquer ndax sax du nga dégg ne ki ne la yàlla lu tax mu defal kii te defaluma wala koy critiquer yonent bi kon ñun garaawul ñun ay simple leader lañ bañuñu ku ñu critiquer mais ñi ngi sant yàlla di ñaan yàlla tamit yàlla nañu yàlla kàttanal ba fi ñuy séentu ci ci ci lu ñaaw ñu bañ ñu faa gis fépp foo xam ne fu baax la yàlla nañu fa dëkk di fa teg suñu tànk. ancien soldat ngay wax. yow nekkal ancien préfet. si mu ndaanaan soldat deuxième classe. matriculé 11 44 22 barkando commando. et eh, lol da koy tirer champ de tir bu ko tirer ci keur gi. d'accord léegi ñu gis ne que weeru koor bi passé nga def ben production ak euh, fer TV fer multimédia production mu nek sa intégration ci ben groupe de comédiens nga ñew wone fa sa bop defalu fa lu di kontaane di saluer d' sa collaboration boobu ak Fekh TV nan la ak li nga dund foofu noonu. waa xam nga maanaam dañuy faral di wax ne mag ñi dañuy faral di wax ne tepp tepp gën yu réet sama collaboration ak Fekh TV d' abord dañ ciy njëkk a sant Balla. Balla Kapo. waaw macha allah mu nekk nit ku baax ku yaatu ku ñàkk ñaan ku njaboote ku respecté mën sama. collaboration ak Fekh TV li ko gën a yokk moom ci la parce que def na ci ay jéego dox na ci ay jéego macha allah ba yàlla dogal tey lii am ma ci sant yàlla nag di bëgg nag ci waa Fekh TV yëpp ndax gis naa bi ma ñëwee niñ ma accueillir niñ ma jàppee ak fiñ ma teg ñu fekk fa ay ndaanaan yoo xam ne kenn dootu leen nattable seen ndaanaan ci Sénégal mais ay nit ñu ñàkk ñaan ñu xajal ma ma dugg ba tey xëy na xajal googu ñu ma xajal ak yaatal gu ñu ma yaatal moo war tax man moo ma tax ma exposé li nekk ci man ba nit ñi di ko wax sant yàlla. d' accord lan nga joué ci koor gi loo xam ne lii marqué na te neex na la trop. non koor gi li ci joué moom neex ma te marqué ma bari na. mayuñ ci ñaar. bari na non bari na parce que xam première dafa am loo xam ne xew ci jamono te dañ dañ koo indi muy chef de quartier wala ngay wala yow tey par exemple yaa ngi bëgg a jël quartier ci koo xam ne mi ngi dund. li may bañ daal mooy rey nit. wala ay yu ñàkk <coughs> dafa bari man parce que man loolu man dama ko dund dama gis ñoo xam ne nii tey bi seen chef de quartier feebaree benn paa moo taxaw ne moom mooy chef de quartier bi teg tànkam ci ne paa bi moom bu deewee moom moo koy doon moo tax bi affaire bi jalle ben doomam daf ma wo bama ñew mu ne ma paa bi mi ngi lay wër barki alquran <laughs> ne ma paa bi mi ngi lay wër. billahi ma ne ko lu may wëre mu ne may comme yow li fi amoon non mu ngi leer na man yak fa yow ma ko yalla xam na ne dama fekk luñ bind la. luñ bind la lu ma fa fekk la. bu tombé la bu tombé mais gis nga lool yëpp daf ma marqué wax dëgg yàlla marqué na ma tamit def benn affaire nit gis ci boppam sant yàlla mhm. sant yàlla. d'accord léegi buñ jugee ci loolu ñu ñëw ci. Euh, gaa yi ngay menacé noonu gaa yi ngay napp. lan mooy sama coppate la. maanaam dañuy bëggante. ah da ngeen di génn yéen ñaar. imbécile yow tax doo laajte. ñaf xoon beeg beeg yooyu noonu touche boobu nga andi daal xam mais xam nga àdduna dañ lay wax ne mooy li ma wax rek mooy métier bi avant succès bi. parce que milieu la boo xam ne kenn ku nekk ak sa talent. te dafa am loo xam ne bu la yàlla nattoo nga bëgg cee bokk dafa am fooy jaar pour bokk ci. bul ñëw rek def pour def bu nit ñi defee nii yow defal nii tous la boo xam ne avant ñuy ñëw foofu luñ doon luñ doon fawe la ba gis ne nit ñi bëgg nañ ko ñu ñëw nag ab mu kii foofu mooy dama lay noq ay boo ma xama boo ma dépassé nangam yooyu dafa dafa dafa nekk terme yoo xam ne nii dafa neex. c'est pas méchant. te sonalul kenn man des fois nit daf may woo nekk kilifa de ne ma sa waay ma ne ah mu ne ma saagay moom ma ne ko da ngaa bëgg ma bàyyi ko mun ne ma déedéet moo koy neexal bul bàyyi de. yàlla xam na ko barki dem damaa daj ak benn waay mu ne ma séemu ma taxaw mu ne ma séemu yow doo bàyyi saaga yi ma ne ko soo bëggee ma bàyyi ko dama bàyyi ko ma bu ko bàyyi ma ne ko noq la laay def léegi rek mu ree ne ma loolu rek laa bëggoon a dégg xam nga mu nekk loo xam ne nii tamit wax dëgg yàlla parce que bu nekkee ne aar moom ngay dund tem ñor la tem leer na ne moom moom nga bëgg dangay ngay fexe nag indi sa tuusu bopp jaar fi nga xam ne mooy loolu. waaw ñu gis ne loolu moom vraiment day nuru saaga te du saaga sax. am lorsqu'on dit que ni dañuy allier l'utile et l'agréable xam comme li nga wax ci affaire chef de quartier bi aussi maanaam loolu mooy indiwaat à dire que ni yéen dëgg la ay comédien ngeen yéen ngi bégloo nit ñi yéen ngi reetaanloo nit ñi mais tam yéen ngi lancé waale ay message non affaire lu nit ki ree ree ree tamit na ci jàll na ci jële jàng parce que mag ñi dañu fa way bu diglewul yeetewul ay naxaaja la métier bi tamit boo ci jàngalul nit yeewoo ko ci tamit day mooy li nga doon wax sànq day nuru fo te du fo pour ñu xam ne xamal nit ki nag nag du fo mooy dañ ciy war a jariñu ak dañ cee war a jànge lu nit ki reetaan reetaan tamit na am tuuti jàngale na am lu mu ci mën a jëlee te wax dëgg yàlla ñu baree bari dañu apprécier ne carrément dañ cee jànge dañ cee jànge kon sant yàlla buñ dee bëggal nit ñi ree tamit am na ñu ciy jàng wax dëgg yàlla te sant yàlla daal. d'accord Sémou jàng na école. Sémou jàngul école alxuraan la jàng jàng naa daara nag waaye école moom jàngu ko kon kon kon kon euh, hymne national Sénégal ndax fii moom ku fi jaar moom di nga ko récité wax dëgg yàlla. waaw man nag xam naa ne ku fi jaar di nga ko récité. Mbaye ngi lay déglu nag ndax Mbaye mooy juge bi. moom laa koy bàyyee comme moo ko moom yëfam la nañ ko ko bàyyee rek moo koy nuyu nit ku baax ku yaatu borom xol bu rafet hymne national moo ko moom na ko téye. man si mu daanaan soldat deuxième classe yi ma la wax matricule 11 44 22 barkandoo commando si mu fit ku ma ci fekk wala nga bëgg koo jël ma noq la man loolu laa wax du leneen hymne national bi nag naa ko bàyyee ak mbaay. ba doo ba doo risqué hmm? commencement bi sax. non jaru ko jaru ko comme ku fi jaar kii ko rek ma la koy ñaan rek man may ma ko man maa la ko ñaan. d'accord. léegi léegi léegi léegi comme niñ ko gisee rek émission bi neex na xam nga waaye daanaka jeex na ñu wax rek euh, lan nga bëgg tàggoo ak lan nga bëggoon wax loo xam ne peut-être laajuñ la si. waa non li ma bëggoon a tàggoo wala li ma bëggoon a wax te laajuñ ma si yow daanaka laaj nga ma lépp sant yàlla xanaa di remercier sénégalais yi di leen wax ne benn bu ñu jàpp bu ñu bëggee rek bëggee nañ leen ko fukk mbégte guñ am ci ñun rek am nañ ci ñoom gu ko raw di wax nag ne sama fans yi nga xam ne ñoom rek. reetaan rek léeg-léeg nañu ree di daanu nag. Ah, loolu mooy la. nañu ree di ko ànd ak daanu waaye reetaan rek fant yoo xam nañu ree rek song la. li wax leerul ak yéen <laughs> maanaam nañuy la leen suñu borom wërsëgale. Ah. bu dee bég nañ. di bégale comme ñu ngi bég. ba yëg ne bég nañ. ah mais ñun nañu bég. <laughs> ñuy ree di comp daal. voilà reetaan gi nay ànd ak dara boo reesaanee nag boole kook dara mu neex waaye ree rek ree rek ah maa ngi leen di dénk ñoom nañ bàyyi ree yi tey comp. ñu bàyyi rey sinon. ah bëgguma leen a noq waaye buñ def def loolu danaa leen noq de danaa leen noq de bi ci topp mooy sama anniversaire. Mm. lu toll ne anniversaire semu waaw ak bi semu tollu Sénégal. ñetti fataaya laa teg. nga benn kaasu kafe kuddu soble. waaw xanaa Balla yëgu ko. Balla yëgu ko. waaye comme yéen yéen yéen a jege Balla jege borom tawféex na yëg lii. Serigne Medoune Seye borom tawfeex na yëg ne sim anniversaire am bii ñetti fataaya la teg benn kudd soble benn kaasu kafe di gërëm nag Sénégalais yëpp di gërëm suma soxna su may doom sama famille yëpp ndax nag wax dëgg yàlla liñ naan feccu liir bu neexee nday jaay sama kii jo yokku nan ma doole daal yokku ma jom waaw di wax sëriñ Serigne Medoune Seye borom tawfeex bëgg naa oto bëgg naa kër waaw bu bëggee ma gën a tranquille bëgg a gën a aj Fekh TV sa kaw ñaar yi dama ko lijjantil bu ma ko lijjantilee rek ma toj Fekh TV incha allah rabbi <laughs> te am nañu yéene Fekh TV àdduna yëpp di ko safoo di ko ndax macha allah ñu ngi koy safoo ñu ngi koy bëggee mais mu gën a yëkkati ko te ñun pare nañ incha allah rabbi yóbbu ko fi mu bëgg mu yegg fa ci kàttanu yàlla. ñu dalaloon fii Semou ndaanaan international matricule nangam sangam nangam sangam ah di leen jox di daje rek xam naa une autre fois ah, couloir d'acteur maa ndoon ak sama b Mister Mor ah. Balla Sock DG. si mu ngi lay woo nag am aaw.